عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع الخيرات والبركات والمعارف والفيوضات وعلى آله وأصحابه والخيرة البررة وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان جميع التوراة ورضي الله عن شيخنا وممدنا أبي العباس مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني خليفته مولانا الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu mbokk jullit ñëpp taalibe yi waa Medina waa Kaolack waa Sénégal lépp àddina bi lépp sax fépp foo xam ne ci kalifa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ak fépp foo fépp foo xam ne ñi dañ koy askanu ci fayda tijaaniya yi Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xam ne ci loxoom la ko yàlla feeñalee ngeen ñëpp ku ci nekk man lay nuyu sa tur ak sa jëmi bopp ñaan yàlla mu jotal ñu mboolem càkkuteef yëpp di ko ñaan itam mu demee mbas mi nga xam ne lëmbale na réew mi lëmbale àddina bi lépp te yàlla mi nga xam ne moo ko indi moom rek moo ko mën a demee ñu koy ñaan yàlla na ko demee ci jàmm yàlla na dem te bàyyi ñu ci jàmm waaye àddina bi lépp ci jàmm ndax Baye Niass radiallahu anhu daan wax ne yàlla te jëlliyam yëpp te jëlliyam ci salaamu rek lañ attan jàmm mu ne su fekkoon ne ay yiin denc daf leen a ebal kon ci benn waxtu ñu faagaagal mbindeef yëpp loolu nag képp bu ko doon laam-laamee yaa ngi koy gis bi corona bi commencé ba léegi waxtu bu nekk rek ngay dégg loo xam ne tiital na borom xel waaye nag ñun comme dañ ñoo yar yar boo xam ne dañoo xamal na lépp lu am yàlla la hmm. te lépp lu mu bëgg a jeexal itam mën na ko jeexal lépp lu mu bëgg a demee mën na koo demee moo tax lu métti métti rek yàlla moom la ñuy wéeru yàlla ñu dimbaleel boppam te yàlla ñu nangul mbooleem ñaan yi yëpp te yàlla na yàlla aar réew mi hmm. aar ñu ko jiite hmm. aar sëriñ si aar xulafaaw yi ak ñi rek seen gannaaw lépp aar itam daara alquran yi nga xam ne ñii dajee tey pour waxtaanee mbir moo xam ne mbir mu mag la ci mbir yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moo ñu ko bàyyee mu baaxoo woon di ko def mu nekk muy njàngam kaamil mi nga xam ne daan nañ ko jàpp bu ñu jógee fu nekk ñu daje fii ci Medina àllarba alxames ajjuma ñu julee ajjuma tëj ko ñaanal yàlla réew mi ñaanal yàlla jullit ñi ñaanal yàlla lislaam fu mu mën a nekk ci àddina bàyyi mosu koo def ci ay naay boppam wala ci soxlaay boppam waaye ci soxlaay jullit ñi ak réew mi la ko def moo tax xalifa bi wax na ma wax na ma ne naa seet naka lañ koy organiser ba def ko ndax dajee nit ñi nekk ñi yomb ndax ni mbir mi tëddee waaye nag comme ku nekk sa daara nga amee nga xëy di fa jàngale hmm. mu ne ku nekk mën na koo ci dara hmm. bu defee buñ jàngee ba àjjuma ci suba ana na Barham Barham bi tey Barham bi tey Barham doomi bàyyam moo daan coordonné ak daara yi di xam bi ñu am yaakaar naa carnet yooyu war na ko gis boo defee liggéey boobu mu toppal ñu ko <coughs> toppal ñu daara yi ñi nga xam ne itam amuñ daara te bëgg jàngee ci jumaa ji dañ jàngee ci jumaa ji waaye na distance yi sudante wala ne lépp mu topp ko xamal ni ñaata kaamil lañ am ñi nga xam ne itam bi ci réew lañ nekk ñu ngi ñuy dégg ñoom ñëpp ku ci nekk loo jàng rek mën ngaa téléphoné joxe ko suñ mbokk maanaam haaj dawra mii nii ñu aju ci Nigéria yëpp danañu topp tool daara yi nekk foofu te daan participer ci mhm. ci dana ko toppatoo ba xam ñaata lañ fa am mu jox mi ko ñu boole yëpp mbokk yi tam ndaa cheikh ul rabbaani muy nii nga xam ne mooy imaamu naafila léegi fii ci Medina ni ko bàyyam nekk woon ak maamam moom itam li aju ci ko toppatoo wax leen ko yëgal leen ko ba nga xam ne ak ñu si hôtel lim bu ñu am foofu rek danañ ko mën a danañ ko mën a jox ñu jox ko bu ko defee buñ boolee yëpp xalifa bi mu ne buñ boolee yëpp ñu julli àjjuma ñu def xatmu bi ñu ngi ci waxtoom dëgg-dëgg mm-hmm. ndax yàlla dafa wax ne man yujiibul mudtarra idaa da'aahu wa yakshifu suu' mm-hmm. loolu nag ci lañ toll fi mu nekk ñun ñëpp mun nañu tëraat waxtu yu ñu mm-hmm. wi nga xam ne itam xay la dëgg-dëgg te ñëpp ragal ko yàlla mi ko mën a ummi moom lañ jublu jublu ci terrain bi jàng ay xatamaat yoo xam ne amaluñ ko lim waaye lu mu gën a bëri rek ñu jël ndax bàyyi amalu ko woon lim amalu ko woon waxtu pour bañ nag nekk benn biddaa moo xam ne daf koo sox ci kaw nit ñi waaye nag at mu jot rek daan na def bu mënee am rek mu jàpp ko rawatina balaa nawet bee commencé ñun nag fi mu ngi am soxlaay nawet bi waaye ñu ngi am soxlaay xay yi tam yàlla yóbbu yi ngi am soxlaay itam yàlla ubbi ay buntu xéewal ci réew mii ubbi fii ay buntu jàmm ubbi fii ay bunti wërsëg ubbi fii ay bunt xam-xam yàlla nag dig nañu dig loo xam ne xamee nañ ci ne guddi waxtu bu demee rek bëccëg moo ci topp ndax ne na te inna ma'al usri yusran inna ma'al usri bi foofu benn yoon rek la ndax alif ak laam di ci nekk waaye yusri bi nga xam ne dafa baamu ñaari yoon ci nakira mooy ne jafe-jafe bu nekk rek ñaari yomb yomb moo ci topp kon jafe-jafe bii ñu nag ñu ngi yaakaar ne ñaari yomb-yomb moo ci moo ci tëb yàlla ñu ko yàlla defal te bu ko yàlla jeexalee itam bam dem yàlla buñ ci am fàttaliku boo xam ne rek ñu naqari ñu dem yàlla leen yàlla yërëm ñu tëdd ci lal yi yàlla leen yàlla saafara ñu dara dalagut yàlla bu leen loolu yëpp ñu koy ñaan ci barke alquran di ñaanal itam xalifa bi fii di Medina mu Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima yàlla yokk fanam yokk wéram yokk mën-mënam ndax lu baax lu nekk moom mu ngi ca kanam taxaw te du am dara lum ci lu ko ci jax-jaxal wala dara lu baax loo ko wax rek kontaan na ci te bugg na moo tax ñëpp sawar pour mbir mi ñu def ñii toog nag ñenn ci sëriñ daara yi nekk Medina la ñu gën a mag ndax Medina fi ne daara yi bari na ndax téeméeri daara ak ñaar fukk naa nga mu ngi fii waaye sëriñ daara yi ñi nga xam ne ñoo jiite yëpp ci daara yooyu ñu ngi fii toog kon ni ko waxee mooy ku nekk rek da nga organiser ci sa daara ñu xam ñaata kaamil lañ am li nga xam ne itam ñoo daan jógee wala dex di ñëw fii ñoom itam nañu organiser ci seen dëkk ci seen daara yi lu ñu am rek joxe ko waa Kër Abibu waa Taïba Niassène waa Koosi waa Gàmbi sax ndax ñëpp daan ñëw ngànt nag am na te ngànt su demee ba indi la loo xam ne amoo ci benn pexe boobaa da ngay dox ni jamono di doxee ni jamono di doxee fi nekk nii mooy ñu defee ko ni mën a am Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu dafa wax ne li seyri zamani que sir nee na sa jamono lu muy doxee doxee noonu jamono nag fu ne li mu laaj mooy nii ñu séddalee wax ji ku nekk rek def ci sa daara soo paree joxe ñu yàlla na ñu yàlla defal taw fépp bay ñu dugg ci jàmm matal ko lépp luñ ci daan ànd hmm? lu baax rek yàlla ñu am lu ko dab bi dab bi alal bii di ñëw naka lay tolloog ci weer vingt cinq ah, vingt cinq vingt quatre vingt quatre di ñëw vingt quatre ci weeru juin bi ci la ñuy commencé ñu jàngee àllarba alxames ajjuma dafay tolloog vingt six bu ñu julli ay yoon ko rek ci la ñuy ñaan yàlla ci rajo bi fu nit toll toll rek man ngaa wax amiin danga nga déglu xatmu bi ci rajo bi da nga ko déglu ci Alfayda ci yàgge rajo bi itam mooy suñu rajo Alfayda ak Kossy TV ak Kossy TV ak képp ku ànd ak ñoom moo xam Almadina moo xam Baye FM ñoom ñëpp ñu ngi yëngatu pour di tasaare li nga xam ne moom la ñuy doxee fii ci tey bii yal na yàlla dimbale leen yal na yàlla yokk leen toofeet may leen ndam itam ci liggéey bi yal na yàlla aaral ñu boppam yal na ñu yàlla wutul boppam te bu ñu aaree itam yal na ñu aaral suñu diine yal na ñu aaral suñu diine yal na ñu aaral suñu diine yal na ñu aaral itam suñu addina ndax addina bi mooy waxukaay bi dem ca aljanna yàlla bu ko soobee am na yàlla may ñu gudd gudd gudd suñ yoo xam ne lépp topp yàlla te lu baax lañ koy def yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal yàlla nangul ñu yàlla ñu yàlla may nawet ak barke yàlla ñu yàlla may nawet ak barke yàlla ñu yàlla may nawet ak barke yàlla yàlla wàccee dafa asamaan te def ko mu ndox bu barke gën nañu gaa joxe suuf bu gàncax bu barke yàlla nañu ci jëriñ ñun ñëpp te yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne suñu jëriñoo sant yàlla te yàlla na yàlla di dolli daa iman te bañ a te fitna bi te mbas mi bu demee yàlla na ko yàlla demee te yàlla bu mu dellu si yàlla bu ñu gisati mel ni moom moo la ko dee numéro barxam bi tey yaakaar naa ne ñu bëri xam nañ ko di ko papa xam na ko xam na ko numéro bi mooy 634 635 48 25 mooy numéro sëñ Daara Cheikh bi tey doomam moo ko amee Alfayda itam seen numéro 77 559 55 77 boobu itam ku ci oote loo jàng rek boo ko oote joxe ko danañ ko indil émission bi ci jumaa ji ñu def ko ci carnet bi moom yàlla dafa ñu koo fekk kon nag ngeen xamee ko moom incha allah àllarba buñ sëlmalee julli suba rek danañ ubbi ci jumaa ji pour ñëpp xam ne commencé na yéen itam bu ngeen mën a teew pour ñu ubbee rek ngeen wax nit ñi ne ubbi tàmbali leen yëpp tàmbali. asalaamaaleykum wa rahmatullahi sëñ bi allah boobu allah bu jullee fajar gi. allah bu jullee fajar gi. comme ni ñu ko daan defee. comme ni ñu ko daan defee. allah boobu bu ñu sëlmalee fajar bu ñu sëlmalee suba rek daal di jàng tey na ji daal di commencé may nit ñi itam lu ñu mën a nekk ñu commencé jàng nag ba ci ajuma ji incha allah dañ dara kon nag ngeen góorgóorlu si bu baax waaw ngeen góorgóorlu ba li ñu daan am rek dañ ko am waaw baram dégg nga ma ngeen góorgóorlu nit bu ñu daan am rek ñu ko am rek dana jox incha allah القرآن القرآن وما كان القرآن من المدينة كنت بنا وما كان من الدنيا لك liggéey bii nii ndax tax nañ ñun buñ daan am rek yokku koy dégg ci biti ñëpp danañ mën a bokk ci gaañ yi te loolu yëkkati na ci bëree Alfayda Tidiane di gërëm itam Baay FM di gërëm Kossy TV di gërëm Albert yal na yàlla yokk leen dimbal yal na yàlla jox leen barke barke alquran barke wàññi ko wàññi ko borom dëkk yi ñu Mawlana bu isaadi wa xawsul ibaad hmm. yow Ibrahima asalaamaaleykum incha allah